Moodu Bamba li mu daaj moo ko mu daaj moo ko may li ma Baay Sëriñ Saaliw mu ñu ko may li mbokki Sénégal mbokki àdduna eh, ñoo ngi fii Daaru Xudoos ñoo fekk fii Mbayang Loum eh, fas yéene moom benn affaire bu ndaw rek Eh, ci magalu tuba gi eh, ci kàttanu e yàlla mbaa nuyu nañ la. wa fay la bu baakha baakha ba Cheikh wa di nuyu ñep di nu Sénégal ñep wa wa ñu ñew tuba tay fekk la fi ah, suma joomul tay moy première fois mbay ak magal si naka nga gisee magalu tuba wa deug la tay moy première fois ma ñew tuba mais nak magal gi ma ko gisee macha allah jar na ñew dal waaw en tant que talibé euh, naka nga euh ambiance bi nga xamné ne gis nga ko Touba ak lu bari lo xamné umpon na la fi. wa ambiance bi moom macha allah parce que tay bo fi euh miru yalla nga fi trop sax berna ya nga fi am pagay macha allah daal ba pare dal yi daal nañ aussi bax nañ macha allah lu yëg lu reuy dal la fi bi ma fi duggé waaw en tant que nitu lamb hmm? tay nga ñëw gis fi nga ñëw Touba gis manam mbeur yi bo démé ci waañ da ngay fekk mbeur yi nga fekk len ci waañ wi kat yi nga fekk len ci waañ de nga naka nga dundé lool wa ni mako dundé moy talibé rek talibé rek parce que doon mbor taxut ñàkk doon talibé doon kat taxul nga doon talibé talibé mbiru yalla mo jitu té mo muju rek wa ay jambar lañ dal aussi waaw mais Mbaye ngi sonn na ci yoon bi ak naka la gisee yoon Touba bi sori na ci moom ou non. non yoon bi presque sori na soriwul parce que ñun sax si oto bi lañ nekk maag Bukar di malagante bi ñuy ñëw. Euh, dama dañoo egsi fii sax fekk Absa di may naan ñu ngi dem dëkk bu sori nag mais dañoo egsi ma ne leen pourtant ma ne ko pourtant fii soriwul parce que ñun peut xëy na bu ñu duggee fii sax Mbàkke la xaw a xat mais yoon bi ñun xatul si ñun vraiment yoon bu gaaw daal la ba pare si nañ si jàmm. té ñu ngi ñaan yàlla waat si jàmm waaw. nga fassiyene dem juma ja ziaré waaw comme mosoo fa dem mbay mu démé lan lay ñaan. waaw juma ja la jëm ni juma ja bu ma fa démé aussi damay ñaan yalla rek Sénégal yalla def fi Pas parce que jàmm si lepp xej parce que man buma ñaanal sama bop jàmm té keneen amul kon day melni awma jamu. mais na ñepp am jamu. ak salaam. en tant que su tali juumul talibé tali Cheikh la won wa ah? wa talibé Cheikh. ak murit benn la parce que ay doomu nijaay doom bàjjen lañ waaw bi nga ñëwee murit nuñ la dalale non ñu ma dalalee moom macha allah Saliba Seex bi si laa nekk ba tey mais nag euh, suma borom kër murit la ñëpp xam nañ ne murit la kon il faut ñu koy gunge rek saa su ne mais bu suñu yoon taxawee aussi dañ ciy dem mais daal macha allah fii dara manqué wu fi ba fi ñëwee ba tey tey ay keesu boisson lañ may indi waaw sëñ am sam sëñ am sa Mbàkke moo ñu dalal Euh, teral ñu ay keesu boisson la fi indi si suba aussi noonu ndekk bi macha allah añ bi macha allah añ baa ngi ci kaw boo eggee ni palaat yaa nga fa am pare mënuñ si dara macha allah daal Sénégal daal yàlla fi yàlla def jàmm aussi te gars yi gën a góorgóorlu parce que lii benn doomu aadama rek moo ko waral kon doomu aadama jooju nañ roy si moom ñun ñëpp ku si mënta roy sax ba jot ko nga roy ba xaw ko jot waaw da baax. doomu aadama boobu yaakaar naa su ma jumul jigéen moo ko meññ waaw nga war a wax sa mbokk jigéen yi la. waaw muñ rek parce que sëy moom muñ la rek sëy nag neexut sëy tey bu neexee suba daay naqari mais nag àddina mel noonu dara duy xëy rek neex waaw jigéen ñi nañ muñ sëy muñal jëkkër yi pour buñ buggee jur ne ku toll ni sëñ Touba wa ilaa ku toll ni sëñ Babacar nañ nangoo jaamu góor ñi rek duñ jaam sax mais nañ nangoo tarbiyawu pour jur doom ju baax. waaw en tant que star Mbayang lan ngay wax supporters yi nga xam ne ñu ngi lay bëggee ci wàllu màggalu Touba ak Tiwaawan comme bu fay dem ban comportement lañ fa war a demee. comportement bi mooy yar rek ak respect ak colin bu baax aussi parce que tey watu watu boo xam ne boo ñëwee Touba peut-être jumaa ji doo sa dugg parce que jumaa ji am na comporté woo boo ñëwee taalibe di taalibe dañ lay génne ci biti kon boo jë jógee di naan damay dem Touba màggal da ngay xool li nga xam loolu la sëñ Touba bëgg nga dem si waaw sol lu baax lu yiw lu rafet ba pare ku màggal indi daal màggalal te yàlla tax te leneen bañ laa indi loolu kese laay wax fan si ak uh, jaamu yàlla yi. chauffeur yi si tali bi parce que yéen ay star ngeen bu ngeen waxee rek nit ñi dañ leen di déglu chauffeur si tali bi maanaam leen di wax. waa Cheikh yi daw ndànk dal ndànk rek parce que tey boo nekkee ci àll bi di doublé def choc tamit. da nga indi rey sa bopp wa ilaa nga indi sa bopp problème baa nga indil ko doomu aadama yi boo dawee bu baax da ngay egg boo dawul bu baax ba da ngay egg kon daw ndànk dal ndànk yal na nag ñëpp ñibbi si jàmm képp koo xam ne dugg nga Touba yal na nga ñibbi si jàmm te dara bum la dal waaw. la fekk si yoon léegi kàddu gu mujj gi lan lay doon. waa kàddu mu kàddu gu mujj daal nañ góorgóorluwaat rek tappewaat xol yi comme ni ma ko waxee ni ma koy waxee rek nañ tappewaat xol yi parce que tey. dañ jóge dañ nekk si mbas ñu ñu doon liggéey am na ñoo xam ne mënatuñoo liggéey du woykat kese am na ñoo xam ne tey mënatuñoo liggéey te loolu yëpp euh, il faut ñu tape xol yi gën a rafetalaat parce que fii amuñ fi dara bu ñuy ñëw indiwuñu dara bu ñuy dem du ñu yóbbu dara lu dul 7 mètres kon nañ rafetalaat defar jikko yi daal man daal loolu laa am daal pour wax nañ defaraat jikko yi bu baax a baax waaw. lim ak fan sa club Ah, fans club yi bari nañ machallah wa waaw ñooñu itam nga di leen wax lan. wa fans club yi di leen di ñaanal jamm rek parce que jàmmu la leen mëna ñaanal ak gudd fan parce que buñ ko amé rek machallah fans club yi yëpp nag parce que tay fans club yi gungé nañ ñu ci lu bari ci mbass mi. kon yalla na yalla defal jamm te bépp dërëm bo xamné ne nañ ko def ko ci ñun yalla na doon ay milliards ci ñom ci daraja sayidina muhammad kontaan nañ bu baax. merci merci. Euh, nuyu nañ la bu baax. waaw fay naa la Cheikh Bulak Rose TV. ñu ñëw Touba fekk la fi lan moo doonoon tànk yi. waaw comme ni ko murit yëpp di defee rek ñëw ziare si xam sama jigéen sama woykat di Mbayang Loum xam nga ñëw tamit xam nga dooleel murit yi rek moo ñu fi indi waaw. en tant que chauffeur que ku ne Boucar xam ne Boucar chauffeur la. naka nga gisee yoon bi bi ngay ñëw am ngeen jafe si yoon moom. non xam nga dañuy naan euh, nit ku ne ak fi nga xam ak fi nga wóolu ndax walub dawal moom xàmmee la rek xàmmee la ndax tey soo gisee taximaan yi ñuy naan ñoo dàq dawal mooy ça veut dire que doo daan bu fi mu am Dakar wala pax rek xam nañ ko ñun nag comme xamuñu euh, péage beeg yooyu moo waraloon rek ñu jaar suñu dëkk am ngeen bu jaxaw jaar biir jaxaw génn dugg Jurbel yaa ma gën a xam. non ngem moom fépp lay dem moom jaxaw moom ñun waa jaxaw lañ moom fuñ dem dañuy yóbbu ngem waaw ngem a ngi waaw 84 pek bi pek 80 yi ñuy kalang langi Mom laa yor nii mom laa indi Doa du ay caaxaan du ay fo waaw mbayang lum dama ne sama magalu ren bi mom mooy magalu spécial ndax yàgg naa ñëw magal vraiment mais allah bima ma àndeek moom ba léegi ci yone ba de la la wax ci yone ba ba fi ñu yexi si rek vraiment waaw magal bi moom macha allah lépp a fi te lepp moko waral vraiment mention spéciale à elle waaw. ñi bëggé mbay, ah Danga waaw Danga mom fans ñëpp la Danga mom Danga Sénégal la waaw ndax tamit euh, ki ñuy bëggé ci wëy xama ni muy dundee rek ñun ñun ñi nga xam ne ni moom ay fansam lañ noonu lañ mën a dunde mooy yaatal xam nga xëj ñëpp sa bopp xam nga di kaf ak ñëpp di ree ak ñëpp moo tax danga bi saaraan baawaan waaw loolu la waaw. ñu jëfee li sëñ bi wax rek ndax fii moom Touba la te dañu ne dëkk moom soo fa demee fekk ñëpp ne dung da ngay ne dung ak ñoom comme fii ay muuru la. ak ay sol lu jot na ñëpp jëfee li sëñ bi bëgg rek su ko defee ñëpp dinañ ñëw ci jàmm xam nga lépp lu ñu fi ñaan sëñ bi nangu ko ñu dellu fañ jóge woon waaw. waaw di jaajëfal ñëpp rek di la naan yow jërëjëf di nuyu tamit sama raq moomoo ngom doomu baabu ngom bi man may ménagère am léegi di nuyu sama mbër rëg-rëg ah ñoom layti seen maa di seenu mbelu ngi nuyu Baye Sall ah nuyu seigne Bas sama serigne sama mara bobu Serigne Mbaye ak Loum bëgg ñëpp jaar ñep rek rang muy yaatu na gën yaatu rek ngeen mu jaxaw di bëgg wa jaxaw way bobu <laughs> ci tali sama way andi fa ay teranga mais teranga yi pour lan ngeen daan ngeen andu ko ci tali ni wa teranga yi dal manam li lepp borom borom borom bis bi rek moko waral moy ko tedd ki khalif rasoul cheikh amadou Bamba motax biñ ko toggé paré ñu dañu jox yóbbu ko ci tali bi jox sun mbokk talibi tali bi ñu xewlu ci ndax ñu bokk yool ñun ñepp parce que borom dañu bis bi buñ ci aggé lu way am na bokk ñu sant lako ci sun borom. mais est ce que mën nañ xam euh, fan la joggé mom ci ban wañ la euh wañ bi nag moom buy sañoon parce que borom mom danaka mom dara da koy def rek ci yalla tax motax tax day ñu koy jégal waaw. waaw nuyu nañ le fay nañ leen waaw. manam ñu gis yeen ngeen di toog di and ci kaw tali bi lan mo waral. xana seigne Touba ka wala rek xewalu seigne Touba waaw. te ñii ñaan nañu fi di ko fekkee ay ati at nag xewal gaa ngi ni dara manqué wut dara manqué lépp a ngi ne gàññ añ baa ngi ni ceebu jën mbaxal daxin ba ñu ñëwee samedi talaate ba léegi ñoo ngi fi te chaque jour ñu toog ma nga ne ñu koy génne nit ñi di lekk taalibe yi ku bëgg lekk ñëw lekk. mais est mën nañ xam fan ngeen jógee yéen ci biir Touba ngeen dëkk wala da ngeen. Kaolack lañ dëkk ñun ñooy euh, dalu kër Moustapha Sow yees Kaolack waaw foofu lañ ñoom lañ dalal këram mi ngi ni fu boo ñam yaa nga ne du jeex jeextukaay misiw yaa nga fa lépp dara manqué wut yëpp ne gàññ mooy Moustapha Sow yees kaw la. loolu loolu yaakaar naa daw na yaram loolu daw na waat trop waaw léegi la wax sa mbokku jigéen lu ma bokk wax suñu mbokku jigéen daal mi ngi nii daal nit daal ngay togg lu doy jox taalibe bi ñu lekk loolu lañ fi am ndigalu sëñ ba la ñu war a dégg. jërëjëf yaa ngi lañ nit ñi ñu lekk jox ndox mu sedd berne gan ñi waaw ci lañ nekk nag liggéey sëñ Touba rek nag. sak anam bu doon nii lay def dama liggéey ba ñaq te sha allah mi ngi ni dara du ma dal yàlla sëñ Touba rek may sam sàmm. jërëjëf kontaan nañ ba léegi ma ngi fi. contane nañ ci yow bu baax waaw. Modou bambali mu daaj moko may li Modou bambali mu daaj moko may li ahmadou